asalaamu aleykum wa rahmatullah suñu mbokku internet yu seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew. tey nag euh, Sénégal yeewu ci naqar Sénégal yeewu ci dëj génn àddina ki nga xam ne moom mooy Basirou jaxate nga xam ne nag nekkoon na ab artiste comédien. boo xam ne liggéey bu rafet la liggéey ci li nga xam ne mooy comédie ñi di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljanna firdawsi waaye biig ci guddi nag ci la wàcc ab liggéey fii nga xamante ni mooy ndakaaru ci hôpital Abass Ndao fii la wàcc ab liggéey waaye ñuy xaar ñi nga xam ne ñooy autorités yi ak mbokkam yi nga xam ni ñoom ñooy ay jege ñaaleem waaye gis nañ képp koo xam ne artiste nga ñëw nga fi nga xamante ni mooy ci morgue hôpital Abass pour nag fas yéene bokk ci li nga xam ne moom du corps suñu papa Basirou Diakhaté nga xam ne Sénégal yi vraiment yàgg nañ koo gis ci li nga xamante ni mooy théâtre mu ànd ak ak suñu papa Dembi Fall nyomu Mamadou Penn waaye nak xaritam bi nga xam ne moom la daan bokk nekk ak fële ca Padois muy ki nga xamante ni mooy Tony moom ñu ko koy di wax tey Sénégal yëpp ñoo ñàkk tey Séné tey addina bi yëpp ñoo ñàkk ndax ki nga xam ne dañ koo ñàkk dafa yàgg bégal Sénégal yi ki nga xam ne dañ koo ñàkk dafa nekk koo xam ne yàgg naa yeete ci li nga xam ne mooy théâtre ba tax na nag jamono jii may wax ak yow ñoo ngi fii nag ci hôpital Abbas ndaw di fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay bokkam waaye nag ab levée du fii lañ koy amalee waaye ñu ngi ko fas yéene denc Touba kon mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy seen TV di ñu topp ci lépp loo xam ne ñu ngi koy joxe ci biir réew mi ak ci bitim réew lii nag moom lañ leen jot a dëgtal ci li nga xamante ni ni mooy génn ak àddina suñu papa basiiru Diakhaté kon mbokk yi ba ci kanam tuuti. ba Woo!

ba tey ci suba ñu yëgal ñu ne dem na waaw euh, ñëw nañ fi ñëwaat fii ah doon ko ñaanal nag ñun ñëpp waaye ku ne ku nekk xam na ne ba Diakhaté taxawaayam ci wàllu teyaat kenn mu ko natable tellement que joué na ci yu pièces yu bare bare bare bay jaar-jaaram au niveau de Daaray Kocc jaar-jaaram au niveau de Jamono tey jaar-jaaram au niveau de l'ARCOT nga xamante nii wax dëgg yàlla Euh, def na fu am solo Bass Diatta de daan assister ci samay mise en scène yu bari bari bari ni mu ko waxee ay saako du ceddo ay ndeer en flamme son principal euh, assistant di may def former itam acteurs et comédiens au niveau du Grand Théâtre kon na ni vraiment mënuñu ko plus que le vice-président de l'ARCOS de Dakar man ma jiitu waaw mu amul len lo xamanteni dawon nako defte ko euh, ci woon waxtan ak man ah yalla nak ay mbiram ken munu ko deug yalla dañ koy ñaanal rek ci li mu wax ci gattal parce que bés la bo xamné c'est un jour d'émotion ñu ñaanal sunu borom bi xaari ko aljana yàggul lol maa ngi koy togn naan kaan mais bas jaxate xana dooma jaay ci garab yi ngay jaay parce que bon voilà dafa doon jekki di def ay commerce ay médicaments ak yoy yep

donc loolu donc lii diabète ak lii tension yëpp daf ñu dal ku nekkalee dal nag waaw ñaan ñaan yàlla rek mu yeex mais suñu relation ni ma ko waxee léegi relation de travail la parce que nee naa ne Bass Diakhaté daf ma assisté ci liggéey yu bari yu ma daan def fii au niveau de l'ARCOS Dakar gii mooy vice président wala ñu am ay pièces ñu daan dawal fële au niveau du Grand Théâtre wala RTS yu ci nekk dama daan assisté xam nañ ko nag vraiment ci comédie show boo xamante ni amaloon na ko ak ñoom Tony ak ñoom Kader ak yooyu yëpp ah daan def lu am solo ci koor gi bu au niveau de Walfadjri ñëpp ci ci vraiment c'est un artiste hors pair li ma gën a neex ci moom mooy que Bass doo mu mer moo soo mu mer xol xolam dafa rafet dafa mos a rafet macha waaw xolam dafa mos a rafet waaw te vraiment euh, duñ ko parce que liggéey ni fi loo xamante ni lii euh, muy état la ministère de la culture

waaw yooyu ci xam ne ana moom ci wàllu aar bi la si des nag ku ñëw àjjuma Bambilor sa dëj ba li ñu fa waxtaan waxtaan mu a yaatu wasalaam jërëjëf waaw Ndiassane wala ñu Ndiassane Bambilor rek fa la Bassirou dëkk fa la cosaanoo fa la yaroo fa la jàng école ba yàlla def nag mu mag ñëw Dakar waaw Baye Baye Bass Diakhaté suñu papa la suñu xarit suñu mbokk artiste comédien ku ne xam nga Baye Sall ñun ñoo doon def lépp ñoo doon yéendu ñoo doon def lépp waaw gërëm na ñëpp nag sant na ñëpp waaw waaye nak tamit am ñu ñep di ko ñaanal fu way mun di tollu rek ah bay ba soxla na ñaan parce que dafa baxone xol bi setone rafet ba taxna na gis nga fim nek ni fi dafa fess ak ci biti dafa fest, ku yebbu di ñaanal bay bas ciowli ciowli moy buñ ko Touba indi ko mu ñew ah ñaanal ko yalla suñu borom rek yalla suñu borom ah, teeru ko si jam ndax vraiment bay bas ku ko xam ah xam nga ko xam ni xam nga nit ku bax ministre de la culture nak yalla lañ koy baye boba be tay mo taxaw bay bas lu ne li war ci mom yop moko def yal naka yalla dimbalé mom tamitam mu yag fi lol te wér jara ngeen jëf yeen wa presse bi tamitam ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen euh, jotali aussi ngërëmu toni toni neena mu ngi leen di sante aussi di leen gëreum ño and me xol bi dafa fess nit ku nek nak tay gi fiñu tok am di nga am bés bu melni nañuy fàttaliku nag suñuy bés te xam ne lii am nii jombul kenn te du gàcc gën a be gën a amu fi gën a bees le moo fi am bas nag am dañ koy ñaanal fa mu jëm yàlla na koy gënal fi mu jóge bas ni mu daan bégale nit ñi ba ñuy reetaan yàlla na si yàlla kontaan ba xaare ko àjjana yàlla mën na ko mën na ko def ñuy gërëm képp koo xam ne fii nag taxaw nga fi tey mënuñu xamuñu kenn mënuñu li tur di gërëm le ministre Alioune Sow parce que aéroport la jóge yëg ko def directement hôpital wax fi wax bu rafet def fi li mu fiy def ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla lii mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal di gërëm nag ñi nga xam ne ñii ñooy mooy soxna Bas jaxat nit ki doo kenn du xarab ñu ngi leen di gërëm Bas Jaxate ak i doomam yàlla nag moo def li ko soob bas Diakhaté du tey lañ ko tàggee woon mosoon nañ ko fi tàgg ça fait six mois de cela waaye nag boobu léegi yàlla def na tey jii la woon bés bi bés baa ngi nii a ah, ñu ngi koy ñaanal moom bas di ña di wax mbokk artiste mi mu nekkandooloon ndooloon ñu ngi leen di wax siggileen leen ko ndigaale muy Tony muy ñoom Lamine Ndiaye muy képp koo xam ne ki daa ànd ak moom si théâtre ñi nga xamne yeen wa presse bi ka daan togul di ka taxaw tamit di fu mu nek ngeen na këpp na yàlla taxawu leen li ngeen bëgg yeen ko xam yal na yàlla defal len man ma ngi tuddu Serigne Modou nya nek euh, artiste comédien bokku ci association bu ñu wax ARCOS mais ma ngi ARCOS de Dakar donc euh, maag bay Bass ñu bokku ben association bo xamantene euh ci la nekkon di ci yëngatu mom bay Bass na kenn mënul wax ci mom parce que liko waral moy mbax gi. Tali gi baye fall gi bëgg dogu doomu adama nango liggéey nekkon suñu papa ju baax nekkon nit ko xamantene lu rafet rek lay wax ci doomu adama ku amone xam-xam nak limi def mu xam ko bëgg ko mën ko ba pare don ko defal askan bi di askanu Sénégal donc lepp lo xamanteni xamone xamoon ko ci xam-xam mu ne ci mom partager won nako ak sénégalais yi lu mu xamone ci lu baxit waxtaane woon ko ak sénégalais yi rawatina ak ñun ñi mu nekkaloon xam nañ ko ndax moom mag mag bi ñu nekk léegi matagul sa deux semaines donc man dese bi nii léegi laa ko yëg gëw ma ko woon sax parce que comme jamono dafa toll foo xamante ne léegi da dugg ci réseaux sociaux ñu rey ay nit fekk deewuñu donc ma ko wax bi ma ko waxee dama ne ko est-ce que li wóor na ma am ñu ma woo téléphone ñu confirmer ko ma ne ah d'accord kon loolu loolu loolu am na parce que maag maag Père Bass suñu dund ak moom dundu murit la Baye Fall taalibe suñu waxtaan yëpp man ak moom barki maam Seera Fall suñu waxtaan mësta weesu Serigne Touba Chebre dem naa ba bëggatuma ko waxtaan ak moom parce que su koy waxtaan ak moom Baye Bass dafa yor xeetu daanu leer boo xamante ne ci moom laa ko mës a gisee da nga yaakaar day crise sooy wax ci Serigne dootu fi ne da ngay jékki-jékki gis ko muy jooy booy wax ci maam Seera Fall même chose dem naa ba sama diggante ak moom damaa arrêté waxtaan boobu parce que dama naan ko Baye Bass yow neexoo nag bu dee daanu moom waxtaanam waaw waxtaanam du yegg ndeysaan en tout cas mu nekkoon suñu papa ju baax non xam naa ni yàggul xam nga tawatu mag day dem ak a ñëw mais xam naa ni bi mu ñëwaatee nii yàggul parce que man mënu ma gisante moom y a semaine semaines matul sax semaine donc ñu woo ma tey na ma gaañu kon nga xam ni kon feebar bi donc feebar bi yàggul ah en tout cas li may dénk njaboot gi mooy ñu muñ ñu bokk ndey bokk baay gis nga adduna ñu war a bokk suñu borom moo leen di boole moo xam nag ci famille bi dañuy bokk ndey wala dañuy bokk baay rek parce que bokk baay am na waaye bokk ndey rek am na waaye li ci ëpp solo mooy ñu jéem a bokk ndey jéem a bokk baay xam ni baay bas benn la woon mënuñu ko séddoo ñi ci sant jaxate kenn mun a fexe ba duñ sant jaxati kon ñu rafetel mbir mi xam ni baay bas fa mu ne ñaan rek la soxla ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te teerool ko ca àjjana firdawsi yi gën a kawe ci barkentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikhul Khadim doole maam Cheikh Rafal yéen it ma leen di remercier ah, parce que ci suba ba léegi maa ngi leen fiy gis yéen a ngi def liggéey bu am solo donc yéen ku ci ne rek site bi nga ne yàlla na nga ci gis sa bopp suñu borom defale la ci teranga defal la ci xéewal ba mu doon ay télé ndax réew mi di Sénégal kon yéen dama leen di ñaanal ay télé ci doole maam Cheikh